mais ñun li ñu seetlu en tout cas ci suñu prise en charge yi ñuy def ak xale yi mooy ne conflit bii gën a affecté xale yi léeg-léeg di perturber seen jàng ba di leen conduire ci situation yi ñuy tuddee difficulté scolaire mooy conflit yi am ci biir kër yi conflit mooy ay jiwoo mooy ay jiwoo yu mën a am voilà mën na bañ a yegg ci xeex de mais ay jiwoo rek xale bi toog di ci assister comprendrewul expliqué wuñ ko te loolu aussi yam saa salaam jàngal nañu ci lu baree bare bare mu ne couple bi sax nay nëbb ay wuuteem ci kanamu njabootam parce que man dama jàpp ne xam na ne am na lu muy bàyyi ci xale bi ak façon xale bi mu doon am na xale yi nga xam ne d'une étape à une autre xëy nañu waajur yi xulloo dem dañuy passer à autre chose ñun ñu tuddee ko faire le deuil de la situation mooy jàll ci leneen mais am na xale yi nga xam ne dañu koy jàpp djugé ci mere seen yaay wala mere seen pap wala mere professeur ba wala mere nangam donc ay situation la ñuy dund ñom ci sen environnement duñ ko comprendre surtout bu féké ay mak lañ parce que bu féké ci fratrie parallèle bi la ci sen ay morom parfois ñom am nañ ay stratégie de contournement yu ñuy utiliser pour jéem ko régler mais bu dé ci mag ñi parfois da leen di dépasser yenn xalé bu ñu ñëwé ci consultation lañ la naan sama papa ak sama yaay tout le temps dañuy xullo sama professeur bi saa yu ma duggee classe mu ne ma da nga nul bu dee ñu nekk si contexte daara ñu ne ma yow doo mokkal mukk ñu la fi jiitu sax donc daf ñuy delloo ci communication voilà ñun dafa am lu ñuy tuddee ci ñun la violence symbolique qui est au delà même de la violence physique et verbale violence symbolique mooy li ngay wax wala ni ngay doxalee ak xale bi du wax kese li ngay wax ak ni ngay doxalee ak xale bi ba xale bi dem dugal ko ci boppam fixé ko ba foog ne moom noonu la mel xale bu ñuy dëkkal di wax ne yow da nga faible yow nulaar nga yow tekki woo dara yaa ma rusloo ay kàddu la yi nga xam ne bari na waajur yu koy wax wala jàngalekat yu koy wax ay kàddu la yu dangereux parce que xale bi dafa nekk di wër lan la ñëwut si bu dee ci waajur yi nan laay doxalee ci sama dund bu dee ci école bi nan laay doxalee ci sama dund ak lan laa war a xam donc nga commencé ko wàññi ñun ñu ne ëllëg si biir day indi li ma wax sànq ci ñeenti soi yi day indi faible estime de soi xale bi day dem ba màggaale ak loolu donc communication day ñëwaat ci li may wax ni ci conflit yi ci jiyoo yooyu mën a am moo xam si diggante waajur yi moo xam ci école ba wala ci ñi xale bi di jëflanteel ñëpp te ñu doon ay mag donc ñu war cee bàyyi xel bu baax a baax a baax ñun en psychologie dafa am lu ñuy tuddee le tout dangereux parce que dafa am parents yu madame mon enfant a tout moy sama dom defal nako lepp école yi gëna a la ko duggal manké wul wul téléphone bi gëna cher la ko mais est-ce que am nga temps pour sa dom yow lan ngay liggéey ba am temps qualitatif même bu une journée bi 20 minutes 30 minutes nga am ko ak est-ce que yaa ngi le repas yi ak N'a ndax yéen ndax yéenay añandoo ndax yéenay reerandoo bu dee ci bis bi mënul nekk ci semaine bi ñaata yoon la loolu di am ñu ne loolu aussi day participer ci psychologie xale bi voilà constat yi ñu def mooy xale yi nga xam ne bari na li ñuy togg ak seen waajur yi ne serait-ce que benn repas par jour en tout cas ñooñu ñoo gën a néew ay question si lu jëm ci nan lañ war a dundee ci lu jëm ci ndax dañoo war a ragal ci wàllu école walla ci wàllu jàng wala lépp lu ñuy entamé ci suñu dund donc waajur bi lan mooy liggéeyam léeg-léeg waajur bi ne la dama naan xale bi yow amoo benn jom pour mu fas jom ci ñun loolu la ñuy tuddee la communication paradoxale yow sa yéene mooy wax ak xale bi lu baax mais est-ce que moom noonu la ko déggee yow ci at yi nga am comprendre nga communication paradoxale mais xale bi xamu ko. yow amoo benn jom ni nga ñàkkee fayda jéggal leen ma ci kàddu bi mais xale bi noonu la koy déggee alors que yow bi nga ko koy wax li ci jublu mooy pour mu fas jom donc da ngay dugg ak moom ci registre de communication bu bu clair nga bañ a dugal ci biir ay complexité ba xale bi du ko du ko comprendre léegi lan mooy euh, les récompenses assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. mbokki akhariti boutique sop nabi station Total bu Ecole école Angela Davis Mounioti ñewati andil lu boutique sop nabi vaisselle di jaay ndabu ay ay nat ay mixeur ay thermos ak glacière plastique fontaine ay tasse petit déjeuner ay étagère ak pose-pied waye mbollem xétu luñuy ñuy ajowoo ci kër mu jëm ci walum vaisselle ding nga ko fekk ci boutique sopp vaisselle boutique sopp vaisselle mbokk yi day def vente en ligne en gros détail ak livraison partout à Dakar mbokk yi sopp na bi vaisselle ngeen man ko joté ci 77 305 04 04 wala 78 179 76 57 wala sopp nabi vaisselle plateforme digitale facebook et tiktok Soponabi nabi Vessel Moki, du di de 8 h à 18 h